par exemple y a plus de 7000 postes à pourvoir. Mm -hmm. ben, 7000 postes, euh, tu es un chef d'État, tu as cinq ans, tu peux pas, tu peux pas te hasarder dans ton choix. Tu peux pas prendre un responsable parce que tout simplement sa xarit la wala sa mbokk la wala non. c'est un dossier c'est quel que soit le poste le le ku ko ku ñu nar a tànn c'est sur la base d'un dossier et poste yu jàll yëpp c'est sur décret le, le décret il te fixe une fonction des prérogatives des missions c'est, organiser organisé cest à bu nekk am na profilam et imagine-toi des des centaines et des centaines de postes à à pourvoir mais c'est pour que président bi bu ne nii lii mooy sama politique lii mooy sama vision mais tu prends quelqu'un ki nga xam ne au moins am nga yaakaar ci moom ci xam-xamam ci expérience am ci ci ci man-manam pour au moins mettre en œuvre ta ta vision sur deux ans sur trois ans donc mënul nekk clientélisme mënul nekk. c'est pas ce qui se passe en ce non pas du tout Senghor commençons par Senghor Senghor kan moo nekkoon. mais si les gens en parlent est du parce que li ñu waxoon affaire de appel à candidature ba Sénégalais am yaakaar. di dem di déposer ji pour les postes de direction c'est ce qu'ils avaient dit non. non pas du tout non kenn déposé gul parce que kenn ubbeegul. waaw loolu nag mooy problème bi yaakaar am na ñoo xam ne dañu toog di dépoussiérer seen i seen i kii man. fii laa toog ne damay dépoussiérer. sama CV ku nekk di xaar lu ñu yàq. est-ce que duñ ñu des di commencer wu ma décevoir man. nous on est prêt à perdre nos temps sur des faux débats. ah mais nag c'est-à-dire faux débat mën nañ ci toog une journée. c'est un mais bien sûr c'est un faux débat cest à soit le président de la république mu xeex walla mu bañ a xeex sénégalais bu ñu ko tànnee mais mënul jël feneen fu dul ci parti am ak ñu ànd ak moom luñ ko mën a laaj tey mooy est-ce que ñi muy jël attan nañu est-ce que am nañu compétence est-ce que am nañu moralité mm-hmm. je, je pense que c'est ça le, le, le vrai débat c'est ça mais Pastef mënul jël nguur dem jëli APR Il y a des gens qui sont dans ce pays qui sont très compétents. idée yi ñu fi émettre démb comme bërki démb naan noo jël Amadou Ba comme jot na liggéey ci wàññum dund bi indi ko naka ngay naka ngay naka ngay xeexee ak nit ba ñu jëlee ko fi nga ni kooku dama koy indi pour mu jox ma expérience am soo amoon expérience daf ko boo amoon expérience dina ko hmm? wane quand même moi pense que daal nit bu ñu la falee bu ñu la falee jëlal ñi nga wóolu fal leen ñu doxal bu sa mandat jeexee ñu defal la sa bilan ñu évaluer la bu ñu lay falaat falaat la bu ñu la dul falaat bale comme ñëwoon fa woon surtout et on avance. non moi je crois que bon c'est ça le genre de faux débat. c'est on va pas s'en sortir euh, on va pas s'en sortir. maintenant moi je ne parle pas des politiques y a des Sénégalais qui sont là compétents. y a des Sénégalais qui ont de l'expérience qui ne font pas de politique ñun on a toutes les expertises expertises dans ce pays là mënoo taxaw ak nit ñi jàkkaarloog ñoom ne leen appel candidature la def les postes de direction nit ñi toog di xaar après on veut nous faire que on ne gouverne qu'avec les hommes ay nit ñu wóolu xam loolu nga jàpp waaw man suivre naa Pastef mësuma dégg Pastef di wax li nga wax par exemple ah non jamais mais yow jàpp nga ko gëm ko xam nga loolu soo soo jaakaarloon ak waa Pastef dinañ la wax ñoom wax li ngay wax mësuñu ko wax d'accord et on est prêt à discuter de. wax naa ko on en a parlé depuis longtemps fii wax nañ ko appel à candidature. ñoom ñoo ko wax non man je parle je parle par expérience. non ñoom ñoo wax ci appel à candidature wax ma Pastef de je parle de la de du gouvernement de l'État appel à candidature la ñu waxoon pour les postes de direction. non appel à candidature dafa am norme par exemple un poste bi nga xam ne Sénégal état dina dugal loxo. Union européenne dina duggal loxam Banque mondiale dina duggal loxam FMI dina duggal loxam pour financer post boobu mais poste boobu foo jaar nga def appel à candidature loolu mooy appel à candidature mais c'est pas dans l'administration euh, courante la ñuy wax appel à candidature ça aussi il faut que les gens y comprennent hein l'appel à candidature c'est des postes bien précis état bi mënul moom code choisir le responsable à ce poste mais tu le vois d'ailleurs tous les projets tous les projets sous-africains la c'est des appels d'offres hein. je, je un exemple très simple c'est par exemple toutes les universités du Sénégal hmm. soo bëggoon jàngale ji tey ji université Cheikh Anta Diop man mënoo jaar feneen su dul appel d'offres le recteur le rectorat mais même le recteur c'est des postes c'est, c'est des compétitions tu as au moins trois candidats donc c' est des postes stratégiques je pense que foofu ma warul woon am sax euh, euh, ñaari idée cest à bu amee poste bu laaj appel ak candidature gouvernement bi amul feneen fu muy jaar su dul appel à candidature d'accord je, je, je crois que pour moi euh, c'est important que Sénégalais yi aussi discuter sur des choses utiles yi nga xam ne bon comme je yi dit euh, vraiment c'est un faux débat qu'on qu'on qu'on est en train d'imposer Diomaye et président Ousmane Sonko est premier ministre le premier ministre logiquement dans le fonctionnement de la fonction il a le répertoire de toutes les compétences des postes à pouvoir. D'accord. Il n'y en a pas un poste qui ne figure pas dans l'organigramme de Ousmane Sonko. Mais loolu foofu foofu la ko fekk foofu la koy bàyyi. Maintenant, qu'ils choisissent leurs hommes. bon, pour moi, honnêtement, je vois pas, <laughs> je vois pas de débat sérieux sur le, de, dans, dans, ce domaine-là. Maintenant, man sénégalais, nous dit un compétent, qu'ils ne prennent pas des, des militants de, de, de PASSEF ou de, ou de, ou de la coalition qui n'ont pas de compétences. Mais c'est la compétence, c'est le savoir-faire. C'est la, la probité. J'espère quand même que Nini, il faut le débattre. pour faire pression pour qu'on ait des hommes euh, à la place qu'il faut pour man c'est vraiment l'exigence euh, en tant que citoyen loolu laay xaar ci euh, gouvernement loolu laay xaar ci président de la république loolu laay xaar ci keneen aussi bon maintenant à part tu tu vois d'ailleurs pourquoi c'est un faux débat ça on, on se passionne et on n'a jamais de solution <coughs> jamais Donc c'est des débats bon, qui nous divertissent, c'est vrai, on, les Sénégalais, ils aiment, ils ça. Bon. Mais à part euh, les nominations, comme je l'ai dit, la presse l'a dit, il y aura un coup de balai. Ça, on, peut, on s'y attend. Et, je, ne vois pas de raison, je ne vois pas de raison que Diomaye ak Sonko doog fii di xalaat que duñu dàq ñi nga xam ne foofu la ñu fekk je je ne vois pas de raison on les a élus pour qu'ils sange donc d'ici deux ans peut-être fii ba trois ans il y aura un renouvellement de l'appareil administratif et technique sur les deux ans et demi c'est à mi-mandat qu'on est-ce que Diomaye a le, le, le personnel qu'il lui faut ou pas